yow. kii man la tey. yow loolu noo tudd. man tan doom la. tan doom. doy bi dal tan bombe. tan bombe. tan bombe. waaw. lan. ñun ay jamono yëpp ñun amuñu dara. Aïcha Morgan. Aïcha mooy yéen tey. am na dara de. def la dafa def. ah wooyu de. dara ah dara yeeyu ma ci de. yettat naan yett na bëgg. ah yooyu kay yaa ngi dem kay ga. waaw kay fee. dunu kay am na yett am na naan. xanaa ñu toog ñu toog dama doon fen yéen. dama xuloon ko bu doon to jàppee pour mu yett. dama dama puy. puy mooy dinaay dinaay. puy. dinaay. mooy yooyu naan cocoy coo. cocoy coo. doy bi de cocoy coo. sama looyee gu fa nag dëgg yàlla sama looyee sama fa moom cëcc yi coo waaye bi eh, jàpp la nii ngay waxe doo waxe nii xam nga ma bu baax dégg nga li ma la wax nan nga tudd dëgg-dëgg man Abdou Lahad Ndiaye. dégg nga kàddu gi Abdou Lahad Ndiaye ju leer. waa lu waral Tan Bombé. Tan Bombé personnage la bu ma incarné woon ci benn film bu ma doon joué ak Pakoti. Hmm. waaw ci lañ ma tuddee woon Tan Bombé. yow théâtre bii ngay def kañ nga ko commencé. théâtre bi école laa ko commencé ba may def sedd 2 waa jour mardi gras 1997 la woon. kon su déggee sa wax 97 ba léegi yaa ngi def théâtre. kan moo la njëkk loxo teg la sur scène. waaw loolu géejawaay la ku ñuy wax Mamadou Camara Kamou. moo Leyti Fall ñoom Leyti Fall ak Tafa Ngom. xanaa ah, kon théâtre bi ngay def nii war am as tuut maanaam yaa ngi ciy mos. waaw maa ah, bi mi lay dundal voilà. tadduma yaay tadday yaa wax lii waaw yow lii nii yaa ko wax maa ko wax tey lan nga wax sa yaay tadday taggal laa ko bëggoon rek taggal taggal maanaam dangaa wax sa yaay pour mu tagg la. mu bàkk la loolu nga doon wax ni ci dotam bi nan nga ko waxee. tadday tadday. mais yow boo dotam nan ngay def sa làmmiñ bi. dama koy takkal. ñaan. tadday. waxal Dakar. data ci dotam. dataay dataay. wax ko normal. Dakar. waxal Géejawaay. déedawaay dootam déedawaay waxal kër gi am na kër maanaam ceeb bi am na daqaar ceeb bi am na dataay wax ko normal ceeb bi am na daqaar deux langages kon loolu technique la booy def pour wax très bien man déggam ko woon noonu mais nag nay leer dégg d'accord bu ngeen paree di leen ko leeral nit ñi di ko dégg xam ne waaw tàggal laa wax tàggal waaw waaw nga rafet nga mu leer jërëjëf kay jërëjëf dégg looloo tax ñu indi la fii sa borom dina fi ñëw ngay leer rek dégg dégg mën naa bokkoo ci famille leen ñoom monsieur leen ñoom man man xaw Abdou bi tamit déet man Abdou Lahat Ndiaye laa tudd ah oui man dama juum daal ma dem mu dem tey mara ma dem ah, doy ma xam li bu ñu taalee caméra dékk la wala ñu jël micro dékk la jàppal ne yow raw nga buum ba teg waaw ñaareem nga wax ba yeew sa bopp kàpp mbaa nga wax ba yeew sa kon tere <laughs> rek xam nga man